dal leen ak jàmm premier ministre Amadou Ba daanaka fépp ci yéenekaay yi nu xëyandool l'observateur xëy fesalum nataalam ci aw xëtam journal Futurs Médias bi ne gouvernement bii Amadou Ba jiite fekk nañ fi ponk yoo xam ne ci urgence la nekk faaw ñu ànd ciy saafara daar daar muy wàllu wér-gu-yaram njàng mekk njàngale mi justice di yoon napp gi càmm gi ba ci tàggat yaram journal L'Info ne écurie bii Amadou Ba jiite ak mbër yi ci nekk ndam rek lan soxla ci ñoom amul avertissement amul tembo amul itam samp nul ndam rek ndax fii ak 2024 yàggul te li leer te moo di li leen di xaar dafa bëri le quotidien moom defal leen fooy de route di yoon wi nu war a jaar ba mën a am ndam ci bii combat journal bi ne ba ca jiitu moo di njëgul dund gi nu dénk ministre Abdou Karim Fofana mu xool nan lan koy wàññee mbënn mi di inondation yi itam ñoon di saafara yoo xam ne dina ci mën a génne askan wi ba faw Cheikh Oumar Anne mi nu dénk njàng mu suufe meeg mu digg doomu mi yéenekaay bi jàppe ko un cas pour l'école école yu mag la Amadou Ba jaar Walf Quotidien mi xëy càmbari jaar-jaaram ne waa ji am nay force waaye am nay faiblesse le témoin ne Amadou Ba tabbunu ko ngir mu nekk premier ministre di ilimaani jëwriñ yi nekk technocrate wala li mu xarañ ci làng gi waaye bokk na ci li tax ñu tabb ko moo di mu mën a dékku waaye fippu yi ku ci mel ni Aminata Touré laas ne Matar Ba mi nu jële ci ministère des sports itam tàmbali naa jurug fippu ci way jege yi direct news ne dëgg la dàqu Matar Ba mënta nekku waxul fawu tension am ca tension itam mënta ñàkk ci wàllu yoon enquête yéenekaay mi ci enquête moo xëy dalal ministre bi ñu ko dénk di Ismaïla Madior Fall lu weesu ca tëngee ci diru fisk ga mu fekk baax waaye terewul Macky delloosi ko ba noppi dénku ko wàllu yoon journal bi yokku ca ne mbir yu tàng jëri itam moo koy xaar bokk na ci procès Barthélemy Diaz mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba ci leeral mbirum troisième mandat tribune yéene kaay mel ni ko naan mbiri troisième mandat kay Patrice Talon mi jiite réewum bene wan na ci yoonu Macky ndax nag nee na ko bum ko def Les Échos ne yi fare ci yeewu askan ku leen ne ñi leen di sonal ak waxi troisième mandat nañ leen may jàmm loolu conseil constitutionnel rek moo ko mën leeral Serigne Mbacké Sylla mi jiite mouvement des cheikhs du Sénégal ak Khadim Fall bu taxaw Touba ne ñoom député yi fari ci ku jégi am na lu leen doy nan xoolaat seen taxawaay ca péncum ndawi réew ma di assemblée nationale gars yi la job ñu dëkkee ci assemblée nationale bu ñu yaakaaree ni mooy woy ñoo ngi nax seen bopp si du ko nguur ne assemblée ndombal tànk suspendre nañ fa seen bopp ba jëmmi jamono ndax li ñu leen def ministre le mandat ne lu ci mën di am daal député yu fare ci yeewi askan wi geetaru nan ne faaw ñu janloo ko Macky boole ci ne suba dinañ gunge ji maire bu Dakar di Barthélémy Diaz Vox Populi ne moom Barthélémy Diaz la mu uti moo di mbir mi doxoon ci diggante mag Ndiaga fukki at ak juróom-ñeenti weer gannaaw ba wooluwaat nan ko ngir càmbalaat ko xool ko nan la nara mujjee ko yoon ne gëndiku waaye yéene kaay bi nee na parquet bi da ko gàntal ba noppi teg ci taabal ji ponk yu koy layal ponk bu juróom benn téeméeri million ci xaalisu dollar le soleil national nee na moom la Sénélec ak MCA Sénégal xaatim nib déggoo journal bi ne lépp moo ngi jëm ci programme Power Compact di wàllu énergie wàllu visa amati nag léexóor libération yéene kaay moo ko wax journal bi ne mafia bu yaatu doon yëngu ci trafic visa mooy lëmbe jamono ji consulat bi nekk ci Dakar journal bi ne enquête yu njëkk yi li mu wane moo di agent bu service des visas ba ci ñeneen def ci mbir mi lii tax libération yéen kaay bu enquête bi jeexee yuuxu dina jip fun ko foogewul fekk ne nekkoon na lettre musulmane euh, ay seede ci moom ko kàngamu lislaam gi mu nekkoon bokk na ca seede yu imam Oumar Diène secrétaire général association imam Oulema Sénégal waaye seede yu njiitu réew mi président Sall gi mu nekkoon bokk na ca seede yu imam Oumar Diène euh, secrétaire général association imam waaye it euh, xamle ki nga xamante ne mooy imam lislaam gi mu nekkoon wàllu xibaar assemblée nationale ak euh, lii di ndaje meneen mu fay tey ji jëm ci sanc commission yëfa fukk ak ñeent ci ay commission lay doon ñu fàttali ni waaye yow askan ñoom dem ci conférence de presse ñu ngi fàttali ne président assemblée nationale defuñu ko seen président ba ci topp daañu amal ay proposition de loi bokk na ca buy euh, criminaliser wàllug euh, ngóor jigéen ak yëraat lii di code électoral bi di anami wote win ci réew mi ñeent fukk ak benn ci jaaykat yi simon yu nu woolu ci diwaanu Thiès ca Mbuur ginnaaw ñàkk jaaye simon boobee ci njëg li nga xamante ni mooy bi war moo waral it juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñetti tonnes euh, ci moom siisir nañu ko ay alamaan ci ndodog ñenn ci ñoom ca alamaan yooyu mën na tàmbalee ñaar fukki junni ba ñaar ci xalaat beneen député yeewi askan wi di Abass Fall dinañu amal ay proposition de loi yu bëri ca biir quatorzième législature bi dinañu proposer benn loi sur le code électoral dinañu proposer une loi pour criminaliser l'homosexualité beneen proposition de loi bu ñuy def mooy la loi sur le contenu local cette fameuse loi sur le terrorisme gis nañu suñu frères yeeg suñu sœurs yi nga xam ni dañ leen jàpp actuellement ni tudd leen ay forces spéciales bëgg ko basé ci loolu te incha allah rabi loolu fan yii di ñëw dinañ ci dinañ ci jug lu dem ci mbirum procès en appel bu Barthélemy Diaz député yu fare ci coalition bi di yeewi askan wi ñoom ñëppay dem ci palais de justice Ndakaaru ngir rek jàppale seen collègue bii di député maire Barthélémy Diaz. jërëjëf Abdoulaye RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minute. RFM rajo nu wi. diwaanu Mbour waa contrôle économique ñoo fa woolu ñeen fukk ak benn ci ay jaaykati ciment juróom ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñetti tonni ciment yu nu daal di sisir li ko waral di danoo jaay njëg lu wuute lool ak li yoon tëral moo waral woolu gi ak i euh, alamaan ba ci euh, ñaar fukki junni jëm ñaari téeméeri million leeral li Abdourahmane Diallo. nguur gi jëloon na dogal ni tonu ciment bi 74000 lay jar maanaam benn sac bi 3700 francs ci région wu Thiès waaye am na ay commerçant yu bëri wala boog jaaykatu ciment yu bëri nekkee ci département bu Mbour li ni mel respecté wuñu ko Pape Amadou Bigue Ndiaye mooy chef de service contrôle économique bu Mbour. ñeent fukk ak benn ci ay nit yu jaay ciment convoqué nañ leen. ñoom ñëpp jaay ñu ciment prix bu yoon teg muy soixante quatorze mille ñoom ñëpp ñu ngi jaay tonne ciment bi diggante soixante seize mille ba quatre vingt mille francs maanaam diggante trois mille huit cent francs sac ba quatre mille francs sac loolu nag dañu ne duñ ko bàyyi mu jàll ci suñu opération tey bi ñu gis ne ñeent fukk ak benn ci ay nit yi ñu convoqué saisir nañ ci ñoom juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay tonnes. ginnaaw bu ñu dégloo ñenn ci ay commerçant ba war a xam lan moo tax ñuy def ñu def bañ a respecté prix yi ñenn ci ñoom dinañu bàyyi yoon def liggéeyam ñeneen ñi ñoom dañ leen di teg daan daan maanaam koppar la ñuy diggante cent mille francs ba deux cent millions. sanction yi moom dina diis lool. ndax texte bi moo prévoir ne bu fekkee dañoo arrêté prix. wala ñu homologué ko. boo ko jéggee euh, sanction bi mi ngi doon ci ñaar fukki junni ba ñaar téeméeri millions. waaw am na ñoo xam ne dinañ ñëw pour négocier. fay amende mën a récupérer seen ciment. mais ñi nga xam ne dañ ci doon jéem def ay njuut njaay ay manœuvres frauduleuses ñooñu certainement on va demander dinañu laaj juge bi pour mu confisquer seen produit ñu mën ko jaayaat parce que euh, buñ ko téyee rek dafay manqué donc dinañ demander autorisation juge bi pour mu jox ñu autorisation ñu mën a jaayaat ciment boobu noonu très rapidement ci ñi ko soxla. du tee ñoom aussi ñu teg leen ay service contrôle économique bu Mbour nag te xam le ni dina wéyal contrôle bi ni mel ci biir département. boobu jàppalaa ci mi njëkk Nicolas ak gaayam mi bokk ci waaye Nampalys moom ak Edouard Mendy duñu ci mbokk ci jongante yi ndax dañoo am i gaañu gaañu nationale bi daal ko euh, xaatim ni kon dañuy dellu seen équipe yi ngir a euh, faju leneen itam si wàllub euh, football mu jëm nationale bi dafay nekk ci waajal Coupe d'Afrique bi loolu dafa mooy tax mu war a bokk ci génn jongante bu nu amal ca Afrique du Sud loolu nag mu ngi tàmbali ñaar fukki fan ak juróom ci weer bi ba benn fan ci weer octobre ca euh, Durban Sénégal nag ci pour gën ko boole moom ak euh, Mozambique ak Îles Seychelles ak Afrique Sud ñoo ca bokk équipe bi mu ngi ci di waaj ñu jàpp ni nag dañoo war a dem ci Coupe d'Afrique war a xewee euh, ci weerub octobre lu ko tàmbalee ñaar fan ak benn ba fanweeri fan loolu moo tax ba seen entraîneur bi di Alseyni Ndiaye nii nag ñoom dinañ jëm boobu la jogante ngir bokk ca la bëgg mooy jël ndam li ngir mën a gën a jekkal seen taxawaay taa ñuy soobu ci Coupe d'Afrique bi Alseyni njaay capitaine bi waxtaan ci Pape Malick Diaw. fu mu nekk nii ñu ngi si wàccaay yi pour tournoi Kosofa bi donc incha allahu rabbi bu si yàlla ande ñu ngi war a quitter Dakar incha allah jeudi pour jouer suñu premier match si dimanche contre Mozambique bi nga xamante ne nii comme boo xoolee on avait du mal à trouver de matchs amicaux ko yàlla def tournoi bi am dëgg donc nga xamante ne nii dinañu servir bu baax ko avant la coupe d'Afrique parce que tournoi bu jeexee juste vingt jours.

xamante ne ni duñu am ay sikki saako duñu am benn dut ci suñu préparation donc di ko préparer bu baax dugg ci bismillahi rahmaani rahim eh, génne ci alhamdulilahi rabil alamin ay euh, demi finale si wàllu basket bi jëm si coupe de la ligue ak coupe du maire ñu ni tey jii te bi jotee jaraaf moom mooy jongante ak waa sandark bu ndakaaru loolu ci jigéen ñi la mu jàpp jëm si euh, coupe de la ligue ci coupe du maire bi nag si góor yi si bak mooy jongante ak waa AS ville de Dakar loolu bu juróom-ñaari waxtu si ngoon jotee la na ma doon Aja San Gueye jërëjëf Malal ñu ànd ak Anna saa léegi ci chronique culture bi musée de la femme Henriette Bathily mu ngi dalal semaine a ngi nii expo photo bi ñu dippee les marées de sueur muy ñaar fukki photo ak juróom-benn yoo xam ne euh, dañ ciy wone euh, liggéeyu jigéen yi nekk ci île du euh, Saloum di yëngu ngir saxalaat mangrove bi exposition boobee di delloo njukkal askanu ñombato waaye itam bu Bettenty Salamata Ousmane Diallo waxtaan na ci ak ki ko taxawal. les marées loolee mooy turu exposition bi titre boo xam ne bu bari loolu lu muy tekki Chérifou Khouri moom mooy auteur bi mu ngi ciy ñëwaat di ñu wax solos bi. les maris de Sueur nag ñu ngi wone liggéey bi nga xamante ne jigéen ñi jàmbaar yi nekk ci commune Toubacouta village yu Néma waaye aussi di wone jàmbaarte bi nga xamante ni jigéen ñi taxawal nañ ko depuis ay at eh, di liggéey ci wàllu environnement waaye aussi di liggéey pour trouver. ay solution face à certains problèmes boawu mangrove mu ngi ko doon dagg environnement mangrove commencé di dégradé wu ba ñu commencé replanter mangrove yi nag ñu gis ni euh, yooyu yëpp mu ngi dellu siwaat à travers le tourisme jigéen ñi dafay seen activité bi nga xamante ni mooy seen principal source de ci bile nag moom photographe bi li ko tax a jóg rek mooy delloo njukkal ak sargal jigéen ñi nga xam ni ñoo nekkee ci commune u Nemaba Niombato waaye tamit ak jigéenu Bettenty yi lu dara lu dul sensibiliser ak rendre hommage jigéen ñi nga xamante ni ñi ngi liggéey ci communauté wu ñombaatu bi bu mu ne ñombaatu mooy commune Saloum jigéen ñi nga xamante ni dañuy replanter mangrove bi position tamit dafa doon rendre hommage jigéen ñi nga xamante ni euh, am na ginnaaw ñaar wala ñetti at ñi nga xamante ni euh, dañu laboon ci ci ci ci géej gi ndax dañ doon dem di wuti Euh, lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benni nataal yoo xam ni day wax ci njàmbaate jigéen ñi nga xam ni euh, ñu ngay jongu ci wàllum culture ak li nga xam ni moo di saxalaat mangrove yi euh, moomee la ñu daal di exposé foofee ca musée de la femme Henriette Bathily li ni mel nag ñu ngi koy amal fii ba njeexitalu weeru mbaax bi. ci wàllu littérature euh, siwal nañ turu juróomi euh, téere yi nga xam ne ñoom ñooy euh, finaliste prix les Afriques édition 2022 édition ren bi méngoo ak juróom-ñaareeli édition bi nag amul benn téere bu bindkat sénégalais bi comité de lecture bu sel littéraire bi daal di ci tànn waaye lauréat bi nag jàppale ni daañu ko xam ci weeru décembre gi ñu dëgmal dina jot koppar waaye itam benn œuvre résultat bu tukkee ci artiste peintre sénégalais bi di Momar Seck mbokk yi fi la yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi